Sehingga jalan Penyemekana Penyemekana Penyemekana abonné wu ci seen youtube bu ñambe tv na station bi la fofu nga abonné wu ndax ngay am vidéo yi ñu duggal chaque jour ci sénégal ñoo fekk ko ci bi kon lañ lool bi fekk imam mu ñëw dalal ñu ñu and fekk si njabootu Modou Mbaye gi yëpp di wax ne daal kontaan nañu. di ñaan yàlla di ñaan yàlla lépp li nga xam ne ñaan nañ ko fi yal na ko suñu borom nangu. te bu ko nangu yal nañ ko fulal. ba moom lim ci yaakaar ci njaboot gi yàlla defal ko ko. yàlla tasaare ko ci commune bi nga xam ne moom lañ suñu boroom ji ji teg ñu ci bopp bi. tas ko ci Sénégal gi yëpp ak jullit yëpp lépp biir bi ñu fa jëlee yàlla na suñu borom boole ñu bokk lépp bokk ko. waaw li ngay li may wax ndaw ñi moom la ñuy wax ñëpp rek xam ànd defar yëmbal. du loo xam ne sii sax xëy na dañu koy wax mais li ci am solo mooy tey yëmbal dañ ma tànn teg ma ci bopp bi ngir ma liggéey ànd ak waaye ma liggéey yëmbal liggéey boobu nag li ci jiitu li ci jiitu wax nañu ko wax naa ko xale yëpp wax mag ñi ma àndal ñëpp ne li jiitu ci bëgg a liggéeyal yëmbal moo ñu àndandoo bokk ndey bokk baay man maire askan wi fu ñu ma soxlaa man maa gis ma fekk si leen askan bu ñu ma soxlaa ñëw ca maire bi képp ku ma bëgg man maa gis ñi toog di waxtaan di sottante xalaat bokk na ndax mënuñoo ànd ak askan wi bu ko réglé soxla askan bi te xamuñu seen soxla effectivement xam nañ ci lu bëree bëri nag mais bu ñu ànd ak nit ñi di wecc ñoom xalaat guddi ak bëccëg luñ ci mën a xam-xam-xam nañ ñu loo xam dinañ gën a xam yan mooy jafe-jafe askan bi bu boobaa nag bu ñu ko gënee xam noonu ànd ak askan wi dem jéem koo saafara wax naa waxati ko askan wi sëriñ bi fàttali na ko léegi askan bi li ñu bëgg lépp mënuñu ko yàlla mi ko bëgg sax defewu ko noonu am na ni mu koy defee kon nag lu askan bi yaakaar ñu yaakaar ñu ñë boor bu ànd yaakaar yàlla lu ñu bëgg bëgg bëgg tamit li ci am solo muy ànd ak ñoom jéem a saafara euh, euh, jafe-jafe askan bi. liñ ci mën a saafara ñu saafara ko liñ ci mënul saafara ñu ànd ak ñoom saafara lañ ci mën dem uti la ci des liñ ci mënul daraat ñu ànd ñoom dem uti ay mais li ci jiital mooy ànd askan wi bokk ak ñoom rek ndey ak baay di nekk ñoom guddi ak bëccëg di jaamu seen soxla ndax ñoom loolu lañ ma fi tege kon nag li ci des waxtaan lay doon ak waa dëkk bi ak waa askan wi ñu xool li nga xam ne si moo moo li ñu mën a anoo def ko ñu anono def ko dëkk nag bu buñ ko bëggee defar ndaw yi ñoo ciy jiitu ndaw yi ñoo ciy jiitu ndax ñoom ñoo war a jël relève bi ñoom ñooy yaakaaru ëllëg kon nag ndaw yi bu ñu taxawee ni ñu war a taxawee ànd ak man mi ñu jiital ci dëkk bi ma ñëw taxaw ànd ak ñoom bokk ak ndey ak baay ànd ak jigéen ñi ànd ak kilifa yi fa nekk ku mel ne sëriñ bi discours bu mu def léegi ak ndigal orientation yu mu joxe ak imam ak délégué def ko léegi takku ko bu yaakar yaakaar yalla dinañu mëna a wan yoon wo xamne buñ fa jaaré dinañu mëna défar defar yëmbal waxuma la yëmbal mais dinañ défar sax wessu yëmbal té lool daal moy kaddu yi ñi nga ñepp ki kii ñëw bokk nday bokk bay tok di waxtaan di waxtaan di échanger li nga xamne mo wara war dëkk bi ñu défar ko lool daal lay o ñepp lu ci oo ndaw ñu ci wo kilifa yëpp jëre ngeen jëf jëre ngeen jëf suñu jaar jaar daal dañu nekkoon dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam dana wax ni su ko xaritoon jar ko am. wu ci seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo